bonjour et bienvenue à tous. Dans votre émission préférée, un Café et Matinal, l'émission qui joint l'utile à l'agréable. waaye nañ koy defee sur su ne rek laata noo door dañuy nuyu suñu kilifa diine kilifa aada Notre ndorteel ca nuyoo ba Serigne Mountakha Bachirou Mbacké xalifa général Koulou Mouride Serigne Babacar Si Mansour Khalifa général kullu Tidiane waaye fàttewuñu ben yoon. Serigne mahignas di xalif général wa keur Baye mom itam ñu koy nuyu diko ziar diko jox waccu waye ñëw ba fi nga xamne rek mom moy diwanu Thiès ziar magal ki nga xamne mom moy Serigne Muniru Njegeen Njegeen mam As mom itam ñu nuyu ko ziar ko ziar itam ki nga xamne moy deug deug Serigne Saliou fi ci diwanu Thiès Serigne Saliou Touré Touré Balla mom itam ñu koy ziar diko ñaanal yàlla yagal taxawayam bu baax ziar ak sante sama yaakaar ja sama jàmbaar ja Cheikh Abdoul Karim Mbacké borom Makarimal Akhla Mbacké ba la ñu ngi lay nuyu di la ziar du ma see wéet benn yoon donc Toch ak euh, madame Guèye dañ ñoo <laughs> te dañoo daw <laughs> Bally Bousso nuyu naa la naa la dalal ak jàmm euh, soxna Jojo maa ngi lay delloo nuyoo bi

sëñ Mbacké Maram Cheikh Ahmadou Kara Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal Cheikh Ndigal Fall mu yàgg fi lool te ànd ak wér ñu ngi lay jaajëfal bu baax Bali Bousso amati mbégte ak kontaante bokk ak yow bi lépp plateau ñu fas yéene waxtaanee li nga xam ne mooy wàllum audiovisuel laal ci li nga xam ne moom mooy politique muy maanaam tolluwaayu réew mi dem ba fa nga xam ne moom mooy ci waanu caali fekk fa ki nga xam ne moom mooy Ibou Thiam jàmm. asalaamaaleykum soxna joojo ñu ngi lay fay bu baax a baax di leen ziar di rafetlu émission bi café matinal bi vraiment di euh, nuyu tamit soxna maam jaara ñu ngi leen di béggee bu baax a baax a baax di leen nuyu di leen ziar. di kontaan ci invitation bi. ñu ngi lay jaajëfal bu baax tonton Ibou Thiam euh, nañ koy defee rek dañ koy daal di door yi ak euh, li nga xam ne moom mooy wàllub euh, information muy maanaam xibaar yi ci ak tënk ñu wax li nga xam ne rek moom moo xew foofa ca diwaanu Yaraax muy maanaam benn bus ba nga xam ne rek juróom ñaari nit ñoo xam ne rek dañoo encagulé wu encagulé wu nag boo ko diggee mooy maanaam dañoo nëbb seeni kanam ñoom nag ñu daal di jël li nga xam ne rek moom mooy cocktail molotov daal di koy sotti ci benn bus ba ñaari doomi aadama rek daal di ci ñàkk seen bakkan ki nga xam ne rek moom mooy jëriñ gi ñu dénk wàllu biir réew mi di Antoine Félix Diome nag daal dina demoon foofu foofule moom nag mu ngay xam ne nag mbir mi nag wàllu banditisme la wàllum criminel la danañ def seen kéemtalaay kàttan rek ba daal di tekk loxo ñi nga xam ne rek ñoom ñoo def mbir moomile leneen ci biir xibaar yi mooy maanaam Ousmane Sonko ma nga xam ne rek gannaaw ba nga xamee ne nag daal nañ koy placer daal di ko yóbbu kaso muy maanaam kaso Sébi Xotaan moom Ousmane Sonko nag ci mu nekk ci ab xiifal. Pape Alé Niang ca wet ga itam door na ab xiifal yenn taskatu xibaar itam di sàkku ñu bàyyi ki nga xam ne rek moom mooy Pape Alé Niang ca na mu gën a gaawee. leneen eh, ñuy wax mooy maanaam jeexital gi nga xam ne rek eh, moom la. grève bi nga xam ne ñooy euh, li ñi doon liggéey ci station yi ñoom nag euh, daal di nañu jeexal li nga xam ne rek euh, mooy grève bi nga xam ne dooroon nañ ko gannaaw waxtaan bu yaatu ba nga xam ne rek amaloon nañ ko ñoom nag la ñu doon sàkku ci nguur Sénégal mooy mu dox leen ay ndàmpaay muy maanaam yàqu-yàqu nga xam ne rek jot nañ ko nemmeeku ca manifestation yi nga xam ne rek moom la ñu daal di génn mm. ñu jeexalee ak li nga xam ne rek moom mooy xibaaru bitim réew dem ba fa nga xam ne moom mooy réewum euh, Niger ma nga xam ne rek daal dina tijj ay frontière am mm-hmm. muy maanaam yoo yoonu jaww gi ak euh, li nga xam ne rek moom mooy frontière terrestre muy maanaam euh, yoonu tëli yeeg lu ni lu ni mel bali Boussou. Mm-hmm. ñu bàyyi nga wëyal ak li nga xam ne moom mooy actualité du net accord soxna jooja actualité du net te dañ koy daal di dooree rek ak leader bu Pastef di Ousmane Sonko ginnaaw bi nga xamee ne rek teg nañ ko loxo nimeeku nañ nag ay yëngu-yëngu ak ay tàq-tàq partout ci réew mi rek ci mel ni Ziguinchor Dakar ba sax am na ñu bëri ñu ci ñàkk seen euh, bakkan ku ci euh, mujj nag euh, di baara ba amoon fukki at ak juróom dëkkoon Pikine nag doon garde sax siège Pastef nekkee foofu ci Pikine dëkk tamit ci wattu mbër mi di Ama Baldé kii di ministre de l'intérieur nag Antoine Félix Diome nee na ñi nga xam ne rek ñoo jëf jëf jooju dinañ ci ubbi ab l'enquête ñu euh, wax ci euh, leneen di euh, afro basket féminin di wàllum tàggat yaram ñu afro basket féminin di jongante bi soxal wàllum soxna yi suñu gaynde yi nag ginnaaw bi nga xam ne rek jàkkaarloo na nañ Égypte ba Égypte daal leen ba ñu war a jàkkaarloog nañ Mali ba Mali daal leen dóor ñu jàkkaarloo nag tamit Égypte daal di koy gagné mu doon loo xam ne rek ñëpp dañ doon wax naan buñ leen gagné dañuy daal di ñibbisi mais yàlla def na ci jàmm ba sax ñoom ñoo am ndam ñu fas yéenee jàkkaarloo nag ñii di waa euh, Camé ñu di ñu leen di ñaanal rek yal na yàlla may ndam ci barke Cheikhul Khadim. amiin euh, hmm. yal na leen yàlla may ndam di la yi wóortaleer yooyu di la seen 24 TV. nama leen ko junjee woon ci ndorteel ga dañoo fas waxtaan waxtaanee lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum audiovisuel. Hmm. laala itam li nga xam ne moom mooy politique. Hmm. la mairie bi daal di jot a saafara tonton Ibou gannaaw bañ la nuyuwaatee ba ba noppi ñu dooree ko. ak li nga xam ne moom mooy wàllum audiovisuel sànq ci dans les coulisses ñu ngi doon wax ci li nga xam ni moom sama benn nijaay boo xam ne amaana sax yéen a doon ànd di di def li nga xam ne moom mooy photographe muy maanaam tonton Pape Seye ma koy saluer wàlle de de passage waxee biir ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant suñuy waajur di sant sama yaay Tako Diagne ak sama yaay Fat Faye bi nga xam ne wax dëgg yàlla yàlla def na ñoom laa dese fii nii ni euh, ñu ngi sant kilifa diine yi ak kilifa aada yi waa bi ñu nuyoo suñ Muntaxa di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla yàggal taxawaayam vraiment di nuyu kilifa diine yëpp di nuyu tamit sama wasila Cheikh Abdoul Mouhaymin Mbacke ibnu sëñ Mourtada Khadim Rasoul imaamu Touba Jeewal nga xam ne mooy sama yaakaar tey ëllëg mm. waaw comme ni nga ko waxee rek euh, dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax wa milieu bi nga ma laaj dina ci sawara tontu parce que ci lay yëngu. Hmm. di ci gagne pain di ci sante yalla bu baakha baakha baax milieu audiovisuel. waaw. Hmm. vraiment ma ngi ci sante yalla bu baakha baakha baax a baax ba muy ciy dugg nak wax di yalla xeyna lo gis rek manam gis comme ni ngay gisee xale bu jigen day tok di jël moromam di jang lett wala affaire yoy xam nga ba mu ciy dugg dama nekkon à base ma daal di temps yooyu ay appareils yu ndaw moo amoon ma dajale sama weccit daal di ciy jënd benn xam jënd ci di ci fo noonu waaw du temps yooyu di jënd percule di ci fo di ci fo noonu waaw loolu normalement ay ay année avant 90 ay 89 88 89 waaw léegi nag biñ demee ba ci biir ñu dem ba ma am sama benn grand bu ñuy wax euh, Doudou Lamine Dabo d'ailleurs maa ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla xare àjjana parce que tey jii su ma am euh, su ma amee amouru dugg ci audiovisuel ba nekk photographe di caméra euh, caméraman moom ginnaaw yàlla ci loxoom la ko sunu borom jaarale mm-hmm. parce que moom moo demoon geeru golfe bi en 92. Mhm. bi muy ñëw nag mu daal di comme moom sama grand la woon lépp mu daal di may indil benn appareil bu ñuy wax Yashica waaw xam naa peut-être anciens yi suñ déggee dinañ. xam quoi waaw <laughs> waaw yooyu. ñoom Rachid xamuñu ko waaw ñoom Rachid moom. xamuñu xamuñu loolu. <laughs> bi ma indi la nag appareil Yashica benn appareil bu ndax kii la woon nii boo xam ne dangay ngay cliquer ci côté bi nii flash bi génn waaw boobu tamit pellicule la woon quoi pellicule la woon xam nga yooyu yëpp moom léegi xam naa ne yooyu yëpp romb nañu gaam yooyu daal. waaw parce que léegi ñu ngi ci numérique bi macha allah léegi nag loolu moom ma dugal jox amour ma nekk ci photo parce que bi ma jàngee ba yàlla def ma dem ba CM2 yàlla dogalul ne man mii ku ci war a jëriñ dara laa dama ko bàyyi waaw bi ma ko bàyyee nag ñu jaari may jël daal di may jox sama benn paa sama nijaay la ci man sama lépp la sama maam jël ma daal di ma fay yóbbu ñu koy wax vieux Mao Fall ku dégg euh, turam di nga xam ñëpp xam nañ ko ci biir Thiès mm. moom entrepreneur la woon nekk mason foofu laa njëkke nekk ci lool ba tey jii de de passage may gërëm doomam yi nga xam ne ñu fi nekk muy Aada Fall Maas Fall ak euh, ñoom euh, Jata Fall Kebe ba ci daat fall parce que tey jii nii lépp lu may liggéey lu ñoom ñoo ma koy liggéeyal te loolu alhamdulilah rabbi am parce que yàlla dogal na seen ci seen papa laa commencé woon ba yàlla tey jii dégg na ba tey jii su ma amee yu demee noonu ñoom ñoo ma koy tabax ñoo ma ñoo may mhm. tabaxal samay kër di ma defal yeneen ak yeneen ak yeneen marché yoo xam ne nii damay am ay copains yoo xam ne ñoom laa koy booleel ñu koy defal muy entreprise boo xam ne macha allah mhm. waaw ñu loolu sànq ci say ndoxteelu wax yaa ngi koy wax muy maanaam euh, numérique bi. Hmm. dafa ñëw mu mu dooleeku ci. Hmm. fi mu ñu bari walum numérique lañu yëngu yeen ñi nga xamné peut-être que vous êtes des anciens photographes. Hmm. numérique bi est-ce que amul ben njeexital boo xam ne c'est un peu négatif bo xamné amna ko ci seen ci seen walu liggéey. wa parce que alhamdulilah parce que tay jii ni maanaam numérique bi comme niñ ko waxee. dem ba ay côté bayax fa la ubbi ay studio nekk xam fi mu teg tànkam di rampe nekkul gisul ndey gisul baay gisul mag gisul rakk kon lii mu taxawal nii daf ko mérité parce que dafa liggéey daf ko liggéey. mu yàlla dogee mu ñëwaat ba fii. yàlla def mu ñëwaat ba fii yàlla def ko mu ubbiwaat studio fii ñu ñu nokk bokk di liggéey. am na reportage yoo xam ne sama bopp doo ma ci woon doy moom moo ma ci doon doy ma yóbbu ko dama ko ci doon ne ko lii yaa ma ci doy mu dem dóor daal di dóor lool. du ko dóor ngir xaalis wala leen soxlawul dara moom na am dafa am amour bi na dem taxaw. armée wu def li mu war a def ba ci Dakar bi numéro bi doo génn ak yooyu am na yoo xam ne reportage yoo xam ne xam nga nit ki da ngay dem fenn ñu commencé la di la xeeb ak di la kii. Mm-hmm. mais am na reportage yoo xam ne dama ko doon am Dakar. Mm-hmm. su ma ko engagé su ma koy engagé moom laay contacté ba pare su ma ne non grand amul benn problème dañuy dem damay sawar jël reportage boobu parce que moom su ko defee su eggee lépp lu mu war a def. moom dina ko macha allah. gérer lu muy war a ba da ngay ba ñeneen ñi dañuy taxaw di. di di xool. am na am na am na am na solo. amaana sax bu ñu toppee sa sa sa. moom soo toppee léegi. loolu la ci doxee ba boole maag ñoom Abdou ñoom Rachid ñen boo yu jaar ci moom rek liggéey na ak ñoom kon boog sant yàlla bu baax a baax a baax. amaa macha allah tamit moom nii la ci demee ak ak du amul lu mu ciy xalaat. macha allah ba ci biir. tontu bu ci am euh, sànq yi samay ndorteelu wax euh, maa ngi dinañ wax ci li nga politique. Mm-hmm. kuy sénégalais. Mm-hmm. ni mu mm-hmm. muy situation yi. c'est inquiétant. muy yaay muy papa muy muy xarit muy képp ku ci homme civil. parce que tu te dis que ni ma vie est tout le temps en danger. jàngat ban nga am ci situation waaw comme niñ ko waxee rek man vraiment politique bi moom ni mu demee nii nii nii comme niñ ko waxee dafa am yoo xam ne dootul politique sax parce que am na loo xam ne su dee bëgg nga sa réew gëm sa réew fonk sa réew mm-hmm. am na loo xam ne du la ko jaral politique ba ay nit di dee di faatu chaque jour ñii di dee ñii di ñii di ñii di yàqule ñii ñuy yàq seen alal ñii du koy ñu koy taal man de su doon man maay maa nekk ci langue politique bi am nen nu ma taxawee ñu may déggal su ma waxee ñu dégg su ma jëfee ñu gis am na neen noo xam ne dinaa xoolaat sama bopp ma xool neen nu may doxee. da jàpp ne daa am kenn koo xam ne ma mooy responsable bi. non waaw bëri na bëri am na yoo xam ne tey jii nii nii nii nii am na ñoo xam ne tey jii nii war nañ mën a taxaw dialogue waxtaan. ci tolluwaay réew mi. ñan ak ñan non bëri na <laughs> président de la république mu ngi fi comme niñ ko waxee euh, opposition bi ñu ngi ci ñu ngi ci ñoom ñëpp war nañ mën a toog waxtaan parce que loo gis rek réeroo amul ñàkk waxtaan moo am. Mm-hmm. mais lii xew ci réew mi kéemtaan la daal kéemtaan la boo xam ne vraiment doy ta jeunesse bi tamit dégguñu. am nañ fou de jeunesse bo xamne tay ji ni est-ce que itam du jeunesse bi dafa am ko xamne mom lañu bëgg parce que tay damay wax ni tak amour amour dafa dafa dafa doy war ku sama tante mais da ngay tàqalikoo ak moom amaana sax nag. <laughs> koo xas ba bëgg jeex mu jaay la ba kanam. non waaw waaw mais lépp rek lépp rek ci ci dal. à chaque fekk nañu fi kilifa yu bari waaw ñun fekk nañ fi kilifa yu bari yàlla dogal na fekk nañ Senghor bi mu fi nekk ba ni muy demee jox ko Abdou Diouf ba yàlla def ni Abdou Diouf di demee lay waat di ko di ko kii di fi jóge eh, di ko jël ah ba ci Macky Sall parti de mondial bi kon boog tey jii nii gis nga politique lépp loo gis rek gis nga Ablaye Wade lu mu dajul ci àdduna politicien du ko daj Ablaye Wade daj na lu ne fii ci àdduna ndax politique te trewul da doon composé ak gouvernement bi di ànd ak ñoom yenn saay ñu dem jël ko dugal ko créer ko dugal ko ci kaso bi génne ko mu génn ñu jëlaat ko jox ko poste mu jël poste liggéeyaat ba ba ba élection ñëw mu génnaat dem liggéey euh, dem campagne waat et cetera. Mhm. dem nañu fa ba fo xamné ne fii lu nek wax nañ ko amna na élection yoo xam dañ nan non lay wa de gagner na kërëb kërëb mais teewul mom du du du mais comme niñ koy waxé du jaar ci ay dret wala yenen ak yeneen pour jot rew mi parce que lool tamit fu metti hmm yooyu dañ koy wara jangat xol xoola bakkan yi fi dem rek.

waaw ñaari cas yëpp moom euh, ñaari cas yëpp waroon nañu xool euh, bakkan yi nga xam ne parce que kenn ku nekk maanaam tey jii soo soo xool leader politique yëpp kenn ku nekk benn nit nga rek ñaanoo yàlla sa doom dee. Mm-hmm. ñaanoo yàlla sa mbokk dee. waaw mais xoolal dee hmm? ñoo xam ne ay innocent yoo xam ne xamuñu dara ay boo yoo xam ne de 17 ans nga xam ne ñu ngi doog a fer ak ñeneen ak ñeneen ñooy rey seen bopp fii ñun gis nañ fi lu nekk. Abdou Diouf ñëw na fi naan jeunesse malsaine Thiès hmm? lépp teewul. moment boobu lan moo tax mu waxoon leen ko. waaw parce que euh, Sénégal yëpp dañoo àndoon ak Ablaye Wade Sénégal comme li xew. te dégg naa sama maam mu may mu may mu may nettali yàlla na yàlla suuf oyof ci kawam. nee na moment bi bi bi Abdou Diouf euh, di di wàcc. Mm-hmm. Ablaye Wade war a ay parti parti socialiste la ñu àndaloon. Mm-hmm. nee am na benn meeting bi ñu mujjee def ñoom. Mm-hmm. nee na yére Abdou Diouf amuñu woon fitu. sol ko sol dañuy jiital buñ ko solee.

sa maam wax na waaw mais boobu violence doon na am <coughs> doon nañu am mais taf-taf suñ dóoree benn lacrymogène ñëpp tas. non mais la ñaata nit la rey. waaw mais waaw mais. waaw eh, ñu pose tuuti. waaw euh, xamaana sax amaana duñu ànd ci point boobu muy <laughs> maanaam <laughs> politique bu njëkk. Hmm. ak euh, léegi yaa may wax ne ma <coughs> nit ñi. léegi la léegi la la la la gën a bon parce que bu njëkkaan amaana bu ñu dóoree lacrymogène mais tey am nay vidéo yoo xam ne amaana sax dab nañu parce que ñun xamuñu ko woon. Mm-hmm. Senghor joxe ordre pour ñu tiire ci ay doomi Sénégal. Mm-hmm. ba ñaata doomi aadama ñoo ñàkk seen bakkan. est-ce que du jumtukaay xarala yi si moo tax empleur bi am mais politique dafa yàgg dafa yàgg métti ci sunum réew. yaa ngi am violence. ah, ah mais man comme ni nga ko waxee rek ba tey jii nii maanaam su fekkee ne foofu moom da fay dellu si moom xam ne euh, day gën a métti rek parce que tubaab yi ñoo fi jiitu di gis na ni ñu def suñu maam yi. vraiment su dee ci gën a mais dama ne ñun boog jamono yi nga xam ne fekkee nañu ay Abdou ay Ablaye Wade politique métti woon na. mais demeewul woon nii parce que doo woon dégg ray yu demee nii doo woon dégg manifestation yu demee nii doo woon dégg taal yu demee nii am na ay violence yoo xam ne actuellement mu ngi ci biir politique bi amul woon parce que tey jii nii am na ñoo xam ne c'est des banditisme yoo xam ne dañ ci rax. parce que xam nañ ne dëkk bi peut-être métti na ñu liggéey nanguwuñ def dara dañuy profité ci occasion yi kavule wu dem di dugg di toj ay yëfu jàmbur di di di agressé di di toj ay leneen ak leneen. mag ñi wax naan ñi gàmm ñi raas dem bokkuñu. bokkuñu quoi Bally mm-hmm. mm-hmm. ñu gis ne moom ba tey nanguwul waaye garaawut amul benn problème di nga <laughs> nangu. waaw ah, amul problème. <laughs> ñun xam nañ di nga nangu. waaw ah, euh, man soxna Diarra mm-hmm. maam dafa ma daan wax ba tey moom moo may nettali parce que fi ko ne c'est une ancienne <laughs> politicienne nee na ma am na ay jamono Kaolack hmm. fa la ñu doon entraîné hmm. ñi nga xam ne ñoom ñooy mbër ñi hmm. fa lañ leen doon entraîné jox leen ñu lekk ba suur naan ba mandi yefal leen neen chaque dañ leen darayale xaraki nag pour lan bu élection jotee ñu am kàttan leen ñu am kàttan sànni leen xale yi dañ ñoo yab ñun dañ ñoo yab <laughs> xam nga euh, sanq yaa ngi koy wax euh, ci début bi est-ce que jotul nit ñi daal di tiit ndax li xew démb gis nañ ko yaraa benn biis taxaw ay sambabo yu dugg ci biir ba am ñu ci jànqe seen bakkan ñoo xam ne sax kenn mënu leen a identifier parce que dañoo lakk molotov waaw ba pare dañoo lakk ba kenn mënu leen a tey kenn xamul ba xam sama mbokk ngi ci yow sa mbokk keneen ak keneen la am naa na ñoo ñu ci génn àdduna seeni mbokk ñu ngi leen di hmm. wax démb ci guddi di ko waxtaan neen yàlla bu ñu <laughs> ay doomu aadama nañu jàpp nañu xalaat ne nit rek te bu mu nekk parce que metti na hmm. metti na tey sa doom ou bien papa dem liggéey ñu la fatina na ca bis dañ ko lak nangam ak nangam lolu est ce que du ñew kon li jooja wax sank naan kenn ku ne dafa war a sa bop ndax ñun ñi di liggéey journaliste ñun mom sax dañu war a suñu bop hmm. ndax tay mënu ñoo taxaw jël reportage ñu fekk ñu fa nangam ak na yalla téré ñu ko invité kéxo sa ñu commencé di def débat bi mako invité ko ñaar yoon aw do ñew mu ne ma duma ñew hmm. xoolal ma insister mu ne ma ñew ba ci yàgg mu ne ma ñew mais antenne bi buy wax naa ma lu war dara rek na nga xam ne man la. <laughs> yow la mooy mooy waral ne tension politique bi fi nekk ak oh. tension sociale bi fi nekk instant yii jotul. Euh, responsable partagé la. Hmm. Hmm. maanaam kenn ku ne nga xool sa doxin ak sa jëfin. Hmm. ndax àdduna dafa jeex ba pare daal. luñ ko mën a wax te Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar. suñu maam yi liggéey nañ ko. nit ñu baax ñi liggéey nañ ko ñeneen ak ñeneen kon est-ce que ñun jotul ñun jeunesse bi ñu xoolaat suñu bopp kenn ku ne nga war a dem liggéey boo liggéeyee nga war a liggéey waa far ku la neex ni APR ah. Pastef hmm. euh, réew mi kenn ku ne am nga fu ngay fam mais tamit nga xool sa doxin ak sa jëfin waaw maanaam tey jii nii am na loo xam ne rek lépp loo gis rek xëy na jàngat la comme niñ ko waxee mais àdduna dama ne su fekkee ne bëgg bëgg sa réew gëm sa réew hmm. am na leen lu bëri tamit loo xam ne bàyyi ci xel parce que dara yàggul hmm. tey jii nii ab comme ni ma ko waxee ma revenir waat ab Abdoulaye Wade def na vingt cinq ans xaw ma vingt six ans opposition di opposé wu ba yàlla dégal waaye moom da ñàkkante da ko doon ñàkkante pas comme mais pas comme violence. ko tëj kaso surtout loolu yi nga xam ne moo xew léegi nii nii. tey jii nii lu jot yàlla def ki war a nekk mm. réew mi ki war a fal moom. incha allah yàlla dina ko fal parce que nguur du nekk loo xam ne lu lu looy looy liggéey la nii wala kii yàlla moo koy bind ci sa jë ne kii lii la war a doon. Mm-hmm. lii la war a doon nit ki di rey sa bopp ci lépp defe ne lii mooy say moom nga war doon te doo ko doon da ngay gis koo xam ne xale bu jigéen boo xam ne day génn ak nit huit du génn ak nit huit ans miin ko mu miin ko mu jékki-jékki kee deux mois kee tax du beneen jabar boo xam ne mooy loolu adduna kon lu jot rek yàlla def doomu aadama yàlla moo mooñaale doomu aadama noonu mhm. tey jii nii ku ci mel ni xalifa Sall daj na lu nekk amoon na amoon na amoon na amoon na yàlla mayoon na ko doole de bu baax a baax mais soo xoolee digganteem ak mag ak situation bi ni mu demee vraiment nga xam ne tey jii nii ay ay amoon na amoon na jeunesse amoon amoon na lépp ah lu nekk mënoon na xew. tonton Ibou Thiam ba ban parti ban parti la tonton Ibou Thiam bokk. non waaw nan nan dem rek. laata ñoo kii. nga ci émission la. parce que day am yu bëri yoo xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy ñu dégg ci suuf. ci bëri yoo xam ne yàlla dogal na ñu ngi koy ñu ñu ngi koy mbébét di ci kii <laughs> dund am na loo xam ne. du a da naan nii daal dañuy jaaxaan rek. Euh, dañuy jaaxaan parce que tey jii euh, mhm. ku mel ni Idrissa Seck dañ na lu nekk fii ah? téye nañ ko fi jiñ ko fi lu nekk tey jii nii te wax dëgg yàlla ku waxal yàlla xam ne wax dëgg yàlla alhamdulilah ba am mais joojo ku gis ku gis dogguma la sax ku gis euh, Nelson la li mu daj ci politique si te mu ngi ni nekkaat président alors dangay ngay noppalu sax ba pare daal ñëw def benn mandat joxe dem ah? mais ku mel ni Idrissa Seck fii ak li mu daj fii ah Thiès tey jii nii am na foo xam ne fépp suñu naan tey jii cees bay wax yenn li xew bay wax cees ba taarixu Thiès ah Ah. munoo wax benn te doone moom. ah, ah. naka la nekk suuf nee na ba nee na ah. gaan bi wax APR la. non non non non dañuy wax rek parce que tey jii nii parce que tey jii nii man man nga ma seetaat feneen sax. mais waaw. ñu demaat ci réew ma loolu yow yaa koy yaa koy. ñu ñu avancé tuuti parce que tey jii nii ku mhm. xool. tey jii soo soo nee ay voies de contournement bi tey suñu dem ba naan ZAC ba. Thiès. Hmm? naan ZAC ba mun nga am terrain 10 millions 15 millions 20 millions. ah ay seen Iran et cetera àll boobu tey ku wowoon sa sa sa sa maam tey su yàlla defoon ñoom mag yi nga xam ne ñoo dëkk caal nga xam ne ñoo doon bay côté boobu tey soo leen waxoon fii nii la mel tey non da nga dañ naan c'est pas possible macha parce que tey jii nii loolu yëpp nit a ko def muy Idrissa Seck te tey jii nii yàlla dogal na mu ngi nii di opposé wu mm. ah? mais loo gis rek te yàlla joxoon na ko ay pouvoir loo gis rek pan la

sax. loolu yëpp mooy li ma la wax rek gisoo àdduna lépp dal la rek ak violence yi nga xam ne moo xew ak yooyu yëpp mais man moom wax dëgg yàlla su doon man maay jiite wala may dogal jàkka jaa ngi ku mën a ñëw nodd noddal man noonu laay doxe waaw. le comme de passage may nuyu ki nga xam ne mooy le juge Ibrahima Amidou dem vraiment nga xam ne di ko saluer bu baax a baax a baax. ku xool ni muy doxee xam ne nit ku dal la ku am ambition la muy partam éthique mais tey jii nii xoolal xoolal yan valeur la bàyyi ah. borom j'ai démissionné d'une justice qui a euh, démissionné démissionné nga xam ne tey moom c'est un procureur ah? nga xam ne bokkoon ci yoo xam les sages yi nga xam ne ñooy doxal réew mu leer ko ne fii mun na fi toog ba keroog yàlla di ko euh, génne fii fu mu soxlaa ay milliards am ko Hmm? mu jóg futti ay eh, génn tekki robam teg ne ne leen vraiment justice moo démissionné damay démissionné ah xoolal valeur yooyu xoolal ñooñu li ñuy liggéey tey jii nii wàcc nag ci làng gi pour defar bokk ci réew mi genre dañ leen war a bàyyi xel waaw mm-hmm. sa Seck lu mu daj nii dañ leen war a bàyyi xel parce que ñooñu dañ nekk nit ñoo xam ne vraiment peut-être seen réew daf leen ñor bu baax a baax a baax ñor na leen bu baax parce que tey jii nii am na yoo xam ne su la ko ñorul su la ko sa réew ñorul

tonton Malick Ngom sama benn tonton mu ngi mu ci mu ngi ci mu ngi ci mu biir ak li nga xam ne moom mooy municipalité bi surtout diwaanu diwaanu Thiali. waaw man li ma doon ñëwaat rek mooy. Hmm. Euh, damay faral di ñu naan dëgg du jaamu du am fu dëgg nekkul. Hmm. est-ce que Macky Sall jotul tamit. mu bàyyi lépp ci suuf ndax euh, bu kon li ko kii waxee rek jooja. Hmm. bu demee ba tas parti festif mhm. mu dal koy tass est ce que du wat benen problème ba xalé tamit station yu juk mhm. ba kenn nak euh, sank maa ngi koy wax kenn ku ne ak ki nga bëgg rek mhm. do bëgg ku ko la jojo mi tay ba amon ko taxaw diko la man man damay taxaw nan jamar lo mom jamar nek kenn du ko laal <laughs> joojo mi tay ba amon ko taxaw diko def da damay taxaw ni ko yee eh, taxaw kenn du ko laal kon est ce que jotu tamit ñu toog ñun ñëpp ñu waxtaan nak réew mi benn bop la kenn mënu ko xar ñaar station yu bari na xalé yaa ñak seen bakkan ñi ñu ci ñak seen liggéey jaar dafa am benn mbir boo xam ne dañ koy faral di wax donte sax kenn àndu ci no justice no peace. comme niñ ko rek gis nga Macky Sall gis nga en 2012 kenn xalaatuloon ne Macky Sall dina nekk président de la République. franchement place de l'Obélisque lañ doon dem mu dem futti ko ji dem wuti dugg ci bi ba def. xëy na maanaam waxoon na ak ay euh, nit ñëpp mais bañ nee ko ba mu ne ba euh, Laay Wàdd ne moom day présenté wu. Mm. moom dafa jóg daal di dem wuti ji. xam nga soo xoolee jamono yooyu vraiment ña fa nekkoon lu nekk daj nañ ko. Mm. lu nekk dégg nañ ko ah teewul ñu daal di ànd ak dal ànd ak muñ. man li ma lay wax li ma lay li ma lay wax rek di ko waxaat mooy dafa am loo xam ne tey jii nii su fekkee ne leer na la ne lii dina faat ay doomu aadama loo ko bëgg-bëgg. bàyyi ko bàyyi ko mm-hmm. parce que doomu aadama mooy lépp. Mm-hmm. parce que benn bakkan rek bu faatu rek vraiment te faatu <laughs> ci loo xam ne anam boo xam ne xëy na yàlla mooy rey quoi moo naan kii fii la war a jaar kii fii la war a jaar mais am na loo xam ne su fekkee ne sabab ba ci lii lay jógee rek ba loolu am rek. yaakaar naa il est temps que euh, xalaataat ñi nga xam ne ñoom ñooy. askan wi jaraatu mm-hmm. vraiment yooyu moom wax dëgg yàlla comme niñ ko waxee rek. ku nekk jaar na ci kaso bi tey jii nii ku nekk politicien bi yoo dégg dañ naa la il faut sax nga jaar kaso pour mën a baaxle mën a le mm. mais dara weesul yàlla yàlla yàlla ñi fi nekk tamit euh, di ay jeunes bëri nañu di nekk am ay ambition comme ni ma la ko waxee mel ni ko euh, le juge Ibrahima Amidou Deme ñoom ñoom Bougane ñeneen ak ñeneen a ngi fi mm. mais lépp rek tollu guñ fenn ah. tologuñ fenn fo xamne tay jini yalla mën na dimbali ñu ñor xomb yor rew mi mhm. kon bok yalla na leen ci yalla jappalé yalla may ñu dal jamm ci rew mi mhm. ba nga xamne dal yi ni di am yépp dal sun borom dina ñu dimbali ba safaral ñu ba xel yi and ak dal nit ñi and ak dal ba yi yépp dal di jeex dal amin eh, ya rabbi yalla na ñëpp am dal parce que damay wax rek ñun xamuñu lu teranga mhm. oustaz taha ay jamono bima ko fi invité bañ doon wax ci yene dëkk yi Sénégal dam doon métier balé bu Hmm. mu ngi naan ma ñun amuñu lu dul teraanga teraanga la ñuy joxe hmm. waaye day mel ne jamono ji am nañ leneen lu dul teraanga di ko di ko di ko joxe hmm. donc politique yi nañ ñuy bàyyiwaat xel bu baax uh, ci li nga xam ne ñoom mooy ñoom ñooy askan ñu yor ay dossier war ci mën teg seen kudd ñu teg ci seen kudd

émission bi da ngeen wax ne ma. <laughs> loo mënta euh, maanaam. loo mënta ñàkk daal yow yooyu. <laughs> ak non faaw ñu wax ci lii caali mais comme ni nga ko waxee rek maanaam loolu tamit euh, wax dëgg yàlla bokk na ci sunuy ambition. Hmm. yàlla dogal na ginnaaw euh, ñu santaat yàlla sax parce que tey jii nii amoon nañ benn délégué d'Akaarte boo xam ne wax dëgg yàlla suñu waajur la. Mm-hmm. ñu koy wax euh, Baye Moussa Cissé. Mm-hmm. di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla dolli ay leer. amiin yaa rabbi vraiment démb la am deux ans démb lañ doon feetewaat anniversaire am. Mm-hmm. ñun fa lañ yendu parce que ñun ci kër gi lañ bokk. moo lay wane dara yàgg ba mu gaañoo mu ngi mel ne démb mu ñuy fête deux ans. le premier août moo doon deux ans bi. waaw def nañ première année démb la woon deux ans deux ans yi ñu yendoog moom parce que am doomam yoo xam ne wax dëgg yàlla sunuy xarit lañu sunuy lépp lañu yàlla boole ñoo ñoom ku ci mel ni Cheikh Tidiane Cissé de passage ñu ngi koy nuyu di gur euh, euh, nuyu tamit euh, Bilali Cissé ba ci Mboro ba ci Mandoumbe Cissé mi nga xam ne yàlla dogal na actuellement moo géré intérim bi mais tamit ñun lépp lu nga xam ne quartier bee ñor lu ñu mën ci jàppale ci rek ñu ngi ca taxaw di jàppale koñ ba tey jii nii parce que lu fa xew nii ci safaan wala yenn yi ñun ñu ngi ciy teg suñu tànk dem fa di waxtaan di xool daal lu ñuy def ba quartier bi jàmm am fa mais tonton yi moo ñu jaaxal yaa ngi koy wax léegi deux hmm. ba Pa Moussa Cissé génnee àdduna ak léegi ñaari at Mhm. waaye ñaari at boobu ba léegi mu caali mënul fexe ba am chef de quartier. waaw waaw loolu lan mooy problème bi est-ce que du guerre de positionnement daf ci am ou bien. a ah, actuellement daal li ci liñ ciy wax moom ñun parce que comme ñun yàlla dafa def ñu am loo xam ne yàlla dimbali ñu ñu juddoo fa yaroo fa màggee fa ah. ASC bi ñu nekk fa def ci liñ ci war a def ba jébbal ko sunuy rab mm-hmm. association yi ñu am fenn fu ñu fa taxawee séq ak kilifa diine yi séq ak kilifa aada yi am séq ak nit ñëpp jàmm ah ba tey jii ni wax dëgg yàlla sunu waajur woowu génn àdduna jóge fa ñu taxaw ay mag ay ay mag ay xale ñëpp taxaw wax dëgg yàlla nañu wax dëgg yàlla lii war nga mën a taxaw pour wuutal ñu fi ci fi nekkoon parce que am nañ ci yow yaakaar. Mm-hmm. loolu daf ñuy jaral ñu futteeku rey ci suñu bopp. question bi tontoo goo ko tontoo tontoo Ibou. muy ban question. ah Bali Bousso wala daa daw question bi. non daw ma ko bañ a tontu xam naa. Ah? waaw daw ma ko lan ba léegi mënuñoo am chef de quartier. ba léegi du si ñu na parce que tey jii nii soo xoolee am na ay candidats. candidats yi taxaw nañu mais loo gis rek am na loo xam ne xëy na gox bi am nañ ci responsabilité mais am na loo xam ne mairie bi da ci am responsabilité. muy mairie zone nord actuellement ñoom li ci ëpp ci ñoom la war a doxee parce que ñoom xam nañ ñiy candidat xam nañ ne quartier bi dafa war a am délégué de quartier ñoom ñoo war a ma toog sukkandiku ñëw wàcc ci daal di ñëw toog xool nan la ñuy def ba saafara loolu ah, ci sama yaakaar xam naa ne ñu ngi ci. Mhm. parce que comme wax dëgg yàlla boobu ba léegi xaw na yàgg te xëy na ak euh, tension yi am ak yooyu xëy na moo tax boobu ba léegi ñoom taxawaguñ ci mais ci sama yaakaar daal xam naa ne am naa yaakaar ne ñu ngi ci. en tout cas ñun fiñ ci war a taxaw moom hmm. ñu ngi ci taxaw waaw. mais euh, tonto yi bu lu tax nga bëgg a doon euh, chef de foofu ban ambition nga am ak foo bëgg a yóbbu quartier waaw waaw waaw parce que nit ki su fekkee ne da nga juddoo ci gox yaroo fa màggee fa. jàmm hein man euh, lol tamit wax dëgg yalla amo lu gem beug bëgg sa bopp mm-hmm. man actuellement ni sama vision moy suma quartier mm-hmm. ci côté bob dama la koy wax tout le temps mm-hmm. sama vision moy suñu quartier waaw tey jii nii looloo tax ma am ambition pour jéem a xool nan laay def pour nekk délégué de quartier mm. parce que foo xam ne tey jii nii da fa doon nekk ak ay mag ñii di la yónni ñii di la ñii ngay séq ak ñoom jàmm ñii nga ñii ngay soxla ay ñaar mm-hmm. dërëm ñu la koy jàppale kërëb kërëb tey jii am na fenn foo xam ne su fekkee ne yàlla may na benn taxawaay bi war na mën nga taxaw pour delloo sa quartier njukkal mm-hmm. mën nga taxaw pour rey sa bopp ci quartier bi xool nan la li nga xam ne fa fa ko ñi yóbbu woon ah nga xool nan ngay def pour jéem a progresser loolu mu gën a avancer. Mm-hmm. bëri na ci am nañ ci ay ambition yu bëri yoo xam ne tey jii nii suñ ko yàlla dimbali woon mm-hmm. dinañ ci dem tey jii nii suñu yàlla dimbaliwoon ñu nekk délégué de quartier am nañ ci yoo xam ne ñaan ñaanatuñu yàlla nit di da ànd ak nit di dem ay police wala tribunal et cetera. Mm-hmm. yooyu avant loolu am nañ. kii ku xool xale yi léegi xam ne këyit pour ñu am ko. problème la problème. ah man actuellement sama sac bi nii chaque jour damay nekk ci yoo xam ne di régler ji ay stress. ay kii wëg euh, ay lu nekk di ko régler ji. maanaam euh, sa li nga bëgg a doon yaa ngi koy doxee sànq. pour man moom ma nekkoon ma bañ ko nekk loolu ñoom kàcce bi ci boppam xam nañ ma ci loolu. macha allah yi nga xam ne damay yëngatu ci demee noonu. lépp lu nga xam ne. jigéen ñi bëgg financement nag. lépp li nga xam ne mënoon <laughs> mën naa ci dugal waaw am naa samay nitu bopp yoo xam ne su ma yaa kuréel gu taxaw ñu war la mën a dimbali am naa samay nitu bopp yoo xam ne yàlla jox na leen ay teraanga yoo xam ne su ma leen gisee ñaan leen ñu ñoo xam ne lépp seen tuut dinañ leen mën a ñëw jàppale leen. jigéenu seen 24 TV de dañoo taxawal benn kuréel. Ah. waaw dañoo. ñu bëgg ku leen jàppale. waaw non fii suñu kër la yéen lu ngeen taxawal rek allah ñu eh, incha allahu rabbi ñun dañ siy bokk tey jii nii nii parce que tamit euh, loo gis rek ndimbal la. waaw tey jii nii lépp loo xam ne lu ñu war a defara rek incha allahu rabbi ñu ngi ñaan yàlla yàlla euh, mottali suñu yéene. ci lu bëri ba ñu mën a am benn position boo xam ne suñ taxawee eh, wax ak nit wala ñaan ko dinañ ci jàppale. jaara kon ñu ñu waajal dañuy am dañuy financement bi dina dugg. waaw incha allah ñaan yàlla

mise au point. Mhm. waxoon naa ko boobu ba léegi c'était en deux mille vingt et un xaw ma deux mille deux boobu lay délégué bi doog a génn àdduna. macha allah mu invité woon ma waxoon naa ko li nga xam ne moo doon sama ambition ci quartier bi ak na mu fay doxee ak projet yi nga xam ne am naa ko. maanaam daal nga sa programme. yàgg na hmm. loolu loolu depuis deux mille vingt et un. deux mille vingt et un ba tey ba tey jii yàlla moo ko dogalagul moo dogalagul délégué de quartier bi taxaw. Euh, ñii ñii laajte caali fan la fan la. la nekk euh, benn quartier la bu mhm. nekk Thiès Nord. Mhm. boo rombee Saint Saint Jean de Dieu. waaw quartier euh, quartier quartier bi da nga naan Jaxaw Caali. Jaxaw Caali. parce que soo ba Saint Jean de Dieu soo ñëwee ba sa cinq ans de jë ci garage clando bi garage taxi bi mhm. fofu la quartier bi commencé mhm. euh Malick Bousso am amna ku lay ku lay nuyu ci live bi c'est Batou Bazik ah Batou Bazik waaw nee na mu lay nuyu bu baax né na mu nuyu na Bali bi mhm. joojo quartier bi mu ngi commencé fofu continuer prolonger ba mosquée ASEC génn jël jël côté canal gi wiri ba sen gin ba sen côté cœur daal di wiiri ñëw ba terrain Jean Collin. foofu la kon quartier bi yaatu na lool sax bu mag la. macha allah boo xam ne wax dëgg yàlla bëri na loo xam ne ñoo fa dund. bëri na tamit ay kilifa yoo xam ne ñu ngi ci biir quartier bi bëri na ay responsable tamit yoo xam ne tey jii nii ñoom ñu ngi ci biir quartier bi. Mhm. yooyu nag suñu yàlla dimbalee. Nous ñëpp dinañ contacter leen xool nan la def mm-hmm. quartier bi. macha allah tonton tonton collectivité locale nous ñu wax la municipalité. Mm-hmm. laata ñoo jeexalee ak li nga association ànd bokk xalaat. Mm-hmm. mairie bi. est-ce que mu ngi bàyyee xel li nga xam ne moom quartier parce que am na koñ yu bëri yoo problème éclaircissement ba tay mo ngi fa waaw deur waaw lolu comme ni nga ko waxee rek euh, de passage tamit ma ci nuyu ñu ngi nuyu premier adjoint maire Mbaye Dembale bi nga xamné min nañ ko di nuyu deuxième adjoint maire Thioro Dia ba ci ñom pap Thiam bi nga xamné ñom it ñom ñu la yalla yor ñu yor commission des sports mm-hmm. ba ci Salbeka bi nga xamné mo yor enfant waaw bi nga madame la maire bi nga enfant mm-hmm. ba ci bi nga dogal conseillère municipal nek ci quartier bi Yalla def na nak yalla bolé nañ mm-hmm. ñuy ñuy ñuy ci mm-hmm. euh, comme euh, barki rek la maire euh, avant pap semaine éclairage yi nga xam ne doxuñu ci koñ ba ñu xool nan lañu koy taxawale incha allahu rabbi ba yooyu am na ay jéego yu ma ci defoon xool yenn ruq-ruqaan yi nga xam ne wax dëgg yàlla làmp yi am nañ problème pour ma leeral leen ko wax leen ko insécurité bi waaw am na fa poto yoo xam ne tamit am na problème hmm. déclaré naa ko yoo xam ne wax dëgg yàlla mën na indi jéeya yooyu tamit déclaré na déclaré naa ko pour ñu taxaw ci xëy na incha allahu di si un peu de temps dinañ ci taxaw. Mhm. Euh, sécurité bi tamit. des na comme niñ ko waxee wax dëgg yàlla caali. amul sécurité lëndëm na quoi lëndëm na mais ñu gën a ñu gën cee taxaw. gën cee kii xam naa ne yow da ngay xaw a ragal sa côté boobu. tout ça ah, waaw mais maa parce que euh, ni mu demee la. <laughs> waaye alhamdulilah daal nañ sant yàlla sax ci côté boobu caali moom ah euh, jaxaaw caali. Ah, ah joojo mhm. am na quartier yu ko gën a garaaw téeméer junni yoon mhm. parce que ñun xamante nañ bu baax a baax a baax xamante ne waaye xam nga sama maam daan na wax naan du man dong bokkuma ca mm-hmm. bokkuma ca da ko da ko gën d' accord waaw daa waa ko d' accord ci côté boobu rek dama dama lay gën a assurer rek pour ñu gën a dinañ lépp lu nga xam ne taxaw nañ ci pour defal ñu sécurité bi kii ko war nañ cee mën a dimbaliwaat bu baax a baax soxla nañ ko de waaw incha allahu rabbi loolu tamit lépp luñ ci mën waaw lépp luñ ci mën <laughs> waaw lépp luñ ci mën dinañ ci <laughs> def ay jéego uh-huh. ñu eggal ko ci ñi nga xam ne ñooy responsable yi ñu waxtaan ceeg ñoom pour ñu gën ngeen ci jàpp ci côté lotissement yi tamit. ah ñun kay loolu day wax. Ah. waaw non caali quartier Jaxaaw caali moom vraiment nekk na loo xam ne tey jii nii joojo buñ ko ñaan yàlla tey jii metti na de. Eh, soo ko doon ñaan yàlla tey ah dina doy waar. mais tonton Ibou xam nga dafa am benn mbir moo xam ne mën nañu peut-être ñu ne ñu redressé ñu ñu xaw a foo xam ne dina kii ak yooyu mais Thiali c'est un quartier latin boo xam nga xam nga bidonville la là on n'en disconvient même pas. Mm-hmm. mais tonton tonton Ibou jëye kenn ñaanu ko yàlla mais mm-hmm. yàlla tere yàlla tere. Mm-hmm. caali am na yenn boor yoo xam ne bu jëyee amoon. waaw day metti moom oto amul sapeur amul fu mu jaar pour mën a. accéder ci waaw loolu moom wax dëgg yàlla moom loolu moom wax dëgg yàlla dama ciy ànd ak yow lu dëgg la. te kenn du ci wax lu am la. ba ku ci mën dara muy autorité yi. non ñun yéen la ñu yaakaar. ah na ko yàlla def rek incha allahu rabbi su boobaa tamit lépp jéego ñu ci mën pour ñu defal ñu redressement xool nan la ñuy def pour jéem ñu ko redressel dinañ ko dinañ ko def mais foo xam ne presque y'a mille dix mille lu ëpp douze mille d'habitants ëpp na ko sax. ci mhm. sama yaakaar. su mhm. tey jii nii am na yenn yoo xam ne. soo ci bëggee taxaw dina metti trop trop trop trop mm-hmm. defar nag kuy defar di nga yàq mm-hmm. ku bëgg défar di nga yaq mais nak ñu ngi ñaan yalla dal suñ ci yalla dimbali won tamit ñu xol redressement yo xamne tay ji ni su jëy amon tamit kenn du loru ba xamne sécurité bi euh, euh, sapeur dina mëna dugg de def liggéeyam ni mu waré ku bëgg défar li nga wara défar di nga ko défar ni mu waré vraiment lool tamit inshallah jamono jamonoy nawet lañu nekk waaw lool mom am wax nawet wax assainissement waaw lool tamit wax di yalla ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu koy adressé mairie bi rek euh, vraiment vraiment soo xoolee mbedd yi xam ne am na ay euh, tey jii paa yi ñenn ñi suñu jóg fajar hmm. bëgg a dem jàkka ja sax dinañu am problème parce que mbedd yi ñi nga gis ñoo xam ne dañuy wiir ji pour hmm. dem jàkk ja tax foo xam ne tey jii dañu waroon continuer rek pour dem am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla yoon yi am na ay taataa yoo xam ne mairie bi war na ci mën a taxaw pour xool nan lay def pour defaraat defaraat taataa yi defar euh, situation bi foofu ba mu gën a normal kanalisation bi tamit ku xool xam ne wax dëgg yàlla jamonoy Abdou Diouf la woon euh, yàlla moo dogaloon euh, jaxaaw caali nekkoon ci mbënn boo xam ne moo waraloon karaal ji am ni ñoom yi tamit ñu de xool nu ñu ci jàppale ba ñu ciy këpp mbalit ak ñenn ñi nga xam ne ñu ngi ciy def naka sudul noonu yëpp ñu xool daal nu ñu ciy jàppalee ba affaire bi daal gën a jaar yoon mm-hmm. surtout tamit éclairage bi ci côté yooyu war nañ ci mën a jàppale bu baax a baax wàllum wàllum UCG mm. est-ce yéen a ngi ciy gis euh, seen bopp waaw pour euh, auto mbalit yi waaw si si actuellement moom wax dëgg yàlla mm-hmm. mardi chaque vendredi dinañ ñëw. ok ramasser mbalit yi nga xam ne nit ñi génne nañ ko ci quartier bi. dañuy waaw dañuy dugg ci biir quartier bi jaar jaar génn jaar Alpha Thiamban wiiri wiiri Cité Canal génn génn ba wiiriwaat côté Jean Collin et cetera yooyu yëpp moom wax dëgg yàlla ñu ngi ciy def li nga xam ne mhm. tamit nit ñi kenn ku nekk. yaa ngi am nga di nga am foo xam ne da nga fay dëkk oto mënu fa dugg comme ni nga ko waxee saret moo ko mën a dugg uh-huh. ñu ngi fay saret charetier yi ñoom it ñu ngi dugg di uh-huh. jël mbalit chaque fin du mois nga fay leen mille cinq cent ou deux mille wax dëgg yàlla loolu tamit yaakaar naa ne lépp ci set setal la bokk uh-huh. parce que nit yi fépp fi nga nekk rek war na am taarix boo xam ne macha allah ku ku fa dugg naw la wala lépp li nga xam ne lu fa war la rek nga def ko waaw man li may ñëwaat rek mooy ci wàllu inondation bi. seel mhm. nañ côté Thiali moom li muy li muy am taataa ndox. Mhm. bëri na lool est-ce que yéen war ngeen a toog di xaar état bi wala ñi nga xam ne ñoo féetee foofu pour defar ko. Mhm. pour pour mën a am kii pour mu bañ a am ndox. waaw doo leen jug ngeen ngeen commencé ko. comme ni nga ko waxee rek actuellement ni ku ne ku ku ne nawet. Mhm. ni di nga tudd ASC tudd association tudd lépp. Mhm. loolu tamit comme ni ngeen ko waxee rek dañ ciy gën a ñaax association yi nga xam ne ñoo fa nekk ak ASC yi nga xam ne ñoo nekk ci gox yi vraiment. am na yenn yu bëri ñoo xam ne loolu seen rôle la waruñu ci xaar mairie. Mhm. waruñu ci xaar état. loolu tey jii war nañu mobiliser wu di xool fi nga xam ne lii luy yàqu luy yàq la gox bi ñu xool nan la ñuy def defar canalisation wala xool nan la ñuy def nuñ koy sëqee régler ay defar ko ba mu jaar yoon loolu vraiment maa ngi ci euh, woo ASC di ci woo association yi comme niñ ko waxee mhm. yooyu tamit lu am solo la mhm. ñu wax euh, ci li nga xam ne moom mooy euh, seen association mhm. ànd bokk xalaat ngeen di def liggéey bu bu mucc ayib dama naan caali ku bëgg a dugg néegu góor jamono ji faaw nga xaar association bokku xalaat <laughs> la nga daan sonni auparavant mm-hmm. xale yi dañoo dem ba ragal ñoom tonton Ibou Thiam ak ñoom tonton Malick Ngom <laughs> ndax ku bëgg a xuuxal sa doom danga naan ko boo yemut <laughs> ñu yóbbu la waaw def liggéey bu mucc ayib waaw euh, yooyu foofu moom dañ ciy sant yàlla bu baax a baax vraiment man foofu moom wax dëgg yàlla soo ma ci laajee rek dama ciy sawar mm-hmm. parce que yàlla dafa dogal mu nekk loo xam ne sunu amour la dañ ko gëm bëgg ko di ci dox parce que tey jii nii loo nekk pendant dix-neuf du caaxaan parce que tey jii nii da ngay gis da ngay gis ñi ñi ñu formé benn association léegi rek woo ñeenti nit rek dem woo TFM woo Sen TV. Mhm. ah woo ñëpp. médiatiser ko jongal ñetti jongal fukki nit ak juróom teg ñetti maire médiatiser ko ci di ci wut lu nekk. ñun nag alhamdulilahi rabbil alamin yàlla suturaal nañu ba ku ñu xam xam ne doxeewuñ noonu macha allah association bi ku ko xam xam ne doxewul noonu pendant dix-neuf ans ñu ngi ci yàlla nag dimbali nañu am nañ ci pendant dix-neuf ans waaw mooy dix le trente juillet bi moo doon dix-neuvième année macha allah chaque année seen vingt seen vingt-quatre dina ñëw couvrir ko ànd ak RTT ñoñu ay partenaire lañ ci biir association bi kérok de passage ñu gëreum Rachid santuko ko gërëm Seck Mamadou sek bi nga xamne mo nek RTT nga xamne ne nga xamne fi la juddo fi la nek sen 24 TV moy lima lay wax rek ci ndag jigen yalla moko may xol bo xamne ma sha allah dafa yaatu dafa bax so xolé xamne dal nitu kese la wa parce que ko xamne wax du yalla da ngay defal nit ba mu jek mm-hmm. nga bayiko mu dem ah sante yalla mm-hmm. tay ji nañ koy delo njukkal journaliste yi fi jóge nañ koy delloo njukkal presse ñi nekk ci presse yi yeneen presse yi nga xam ne fii lañ sosoo fii lañ jaar nañ koy delloo njukkal bu baax a baax a baax mhm. parce que nit ki su fekkee ne da nga yor grande cœur rek doo ñàkk dara moom alhamdulilah rabbi alamin parce que ku xool seen boo fi dem fii rek gis nga produit wu ndag njëgel soo demee nii prestige ñoom fa formé ñi mu formé fii ñu dem foofu ak feneen ak feneen duñ mënuñu la wax nu mu toll ba ci biir ceeb formateur la waaw comme dañ koy ñaanal mhm. yàlla daal yàlla la fa ko ceeb mhm. ci loolu mhm. euh, journée bi nag dafa nekk ko journée boo xam ne ñun dañ ci commencé waat nañ ko préparé ñii ñoo nañ ci waajtaay waaw incha ba di ñaan yàlla déwén vingt ans yi mu nekk loo xam ne lu extraordinaire lay doon te yàlla nañ ci yàlla yóbboog jàmm yàlla may ñu dund ak fekke su boobaa di ngeen gis lu ne ah. am nañ ci partenaire koo xam ne muy sunu grand ñu koy saluer di ko gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla yàlla lafal ko cet muy Souleymane Ndione ak soxnaam madame Ndione mii ka ñoom tey ñooñu dooleel ñooñu jàppale ñooñu suturaal tey jii ñooñuy ñooñu ñemeloo ba ñu mën a téye lii pendant dix-neuf ans sa tey moom mu ngi ba Belgique moo soxnaam tey jii nii su fekkoon moom jàppale wuñu kon xëy na mbir mi mën na sooxe xëy na ñun mën nañuy dajale suñuy ñaar dërëm de par weer wala ñu dajale suñuy ñett dërëm mais am na seetul ne yor nañ cent franc walla yor nañu un million lépp moom mooy taxaw tegal ñu ko ci table ji ba ci bii passé rek avant premier bi ma koy def Rachid moo ñëw toog toujours juste muy doog a ñëw le lendemain ñëw may def avant premier bi maag sama gars yi 1 million CFA la génne dama am. macha allah man maa ko mooy sama départ. ci participation sans participation ci journée consultation gratuite journée bi nan lay tonton Ibou ah journée bi affiche fi li fi am mhm. de retour, dentiste dañ koy def pédiatre am euh, circoncision bi mom machallah a 150 150 mhm. personnes bokkul ak yi nga koy def pendant 19 ans loolu ñaata am na tey jii nii comme ni ma koy waxee sax dama naan léegi sax am na ñoo xam ne xam naa ne médecin yi nga xam ne yàlla dogal na ñu doon fayee ko ay 10 000 la ki kii moom mere nañ mere nañ leen ci parce que tey jii nii képp ku sa doom képp ku fi am doom bu am trois ans ba ci 2 ans trois ans jëm kaw ah yaa ngi toog xaar booy di leen su suñu kiiwee ñu ne ah soo <laughs> su yàlla dogalee ñëwoo euh, ren teeloo ko yëg sax nga ne ah garaaw naa bàyyi ba déwén parce que jong du loo xam ne lu lu lu lu lu la quoi xam nga ñun tey ren ji jongal nañ ñoo xam ne sama yaram dafa daw ay muskalaf je te le jure barke man gis naa ci ñoo xam ne tey jii ñooñu biñ ñëwee dama ne ñii xanaa dafa am xaw moon ne dañuy dañuy dañuy ñëw pour ñu. def da nga yaakaaroon daa am ñu ñu indi xale yu ñu indi. kon loolu. man tonton Ibou Thiam day ne mag ñi bu loolu bu njëkkaan loolu lañ daan def. ah mais daal actuellement nii moom am na loo xam ne. tey jii dañuy ah. la kay. waaw léegi nag jamono. jamono moo dox. jamono moo dox léegi loolooy dugg néeg góor parce que tey jii nii. waa néeg góor moom war na ci fàttaliku mais am na foo xam ne soo demee ba toll benn délage bi tamit ka lay dagg wala ñalay kii ak wala yow mañ koy defal ak jamono fi mu toll nii. di nga am kersa mhm. looloo tax quoi moo tax ma leen di ñaan rek. Mhm. de passage nañuy préparer seen doom yi mhm. chaque année doo fay dara doo fay dara. loo xam ne doo fay dara. nga ñëw dañ lay jox dañ lay jox garab. dañ lay jënd piqûre dañ lay defal lépp benn mille francs ngay participer. participation symbolique. 1000 francs pour association macha allah loolu loo waroon fay ay dix mille quinze mille am na ñoo xam da ngay dem fay vingt mille clinique yi hmm. ñu jongalal la dañoo hmm. mille francs ngay fay soo soo ko fayee ñu jongalal la sa doom am na suivi parce que barki démb fa lañ nekk ak la docteur Sakho maa ngi koy euh, remercier waat parce que Madiara Ngom mi nga xam ne moom la yàlla dogal mu yor muy major nekk yor euh, di santé bu yëmbal hmm. moom la yàlla dogal moom moo yor lépp li nga xam ne moo jëm ci association bi mooy euh, moo yor journée consultation gratuite bi médecin yi moo leen di indi ñi def échographe moo leen di indi ñëpp ñëpp ñi nga xam ne daal foofu lañ euh, ñoo dentiste ñëpp moom yàlla dogal na moo leen di indi ren jii di onze personnes ñëw nañ ci circoncision bi ak ñi nga xam ne doomu gox bi lañ yàlla dogal ñu jàng ko ba mën ko comme ni ko waxee ni ko ni ma ko waxee léegi ku mel ni Sakho mel ni euh, kii Fall waaw wax dëgg yàlla dëkk foofu ñoom ñëpp dëkk ci koñ bi waaw di doomu gox bi yàlla dimbali woon ñu jàng ba yàlla may leen ñu xam ñëw tamit ci journée bi xaaruñu ku leen ci woo dañuy ñëw def seen participation te duñ la ak ñaar loolu tamit dañ ciy sant yàlla ah, laaj ñoom jatu saar ñi nga xam ne yàlla dogal nañu nekk ay hôpital régional ñoom it dañuy ñëw participer waaw ci euh, col de l'autruche beeg yëpp ay sages-femmes lañ ñoom ñëpp dañuy ñëw participer. xam nga ñoom ñoom ñoom daal vraiment sant nañ leen di gërëm tamit boyum boyum mi nga xam ne pharmacien la mooy ñëw lépp li nga xam ne garab la yu ñu war a joxe moom mooy ñëw daal ci taxaw daal ci daal ci daal di koy teg fi mu ko war a teg journée bi daal journée boo xam ne ñëpp dañ koy xaar saa su mais nag di ci beral gërëm rek comme ni nga ko waxee Souleymane Ndione soxnaam mii ka Malik Ngom tonton Malik dañu nekk waaw tonton Malick xam nga ko sa mbokk la sa mm-hmm. mais vraiment da dañ am taxawaay boo xam ñun amuñu xaaj di ki nga xam ne tamit mooy Aliba mooy président bi Pa Moussa Ndione mooy secretaire général bi mhm. euh, Fat Gassama mooy trésorière bi Ndeye Binta Ndione moom mooy présidente bi waaw man nag maay euh, maay président d'organisation bi maay coordonné lépp li nga xam ne daal mooy jëm ci activité bi ah, mhm. vraiment loolu daal lañ fi def le trente mhm. bi ku ñëw xam ne def nañ lépp li nga xam ne war nañ ko def di ñaanal yàlla bu benn laaj booy laaj ci li nga xam ne moom moo jëm ci bilépp association waaw euh, man association bi dama koy rafet rafetlu tout d'abord ndax ku li nga wax sànq rek ku jël sa doom dar koy euh, yóbbu néegu dugal néegu góor mm-hmm. te joxe woo ci dërëm lu dul 1000 francs boo xam ne da nga ko ciy barkeelu rek mm-hmm. loolu moom c'est quelque chose boo xam ne ñu koy koy rafetlu bu baax a baax mm-hmm. mais li may ñëwaat rek mooy euh, naka la demee yéen ak digganteeg sànq yaa ngi koy hôpital régional ak yeneen ak yi comme ça 16 ans de jë nga xam ne moo nekk foofu ci biir koñ bi tamit waaw actuellement daal yàlla dogalagul ñu am ci benn subvention boo xam ne jóge ci ñoom euh, Madiara Ngom mi nga xam ne daal dinañ leen bind dinañ bind lettre nag. Hmm. wax leen xamal leen. Hmm. ne li ñuy ñu ngi koy def ci gox bi daal. waaw Madiara ngoom moom dina def li nga xam ne foofu la war a jaar. Hmm. mais xaaruñu ci kenn parce que yàlla dimbali nañu am nañ ci taxawaay yoo xam ne ñu ngi ciy taxaw. waaye wax dëgg yàlla suñu sañoon tamit li ñuy def sante la ñoom ñoo fi nekk. ci gox bi lu ko mel ni 500 comme ni nga ko waxee dixième ñi nga xam ne ñoom it ñoom jege nañ ñu ñooñ tamit waroon nañ ci mën a. mën nañoo jàpp jàpp ci mbir yi bu mhm. baax a baax di leen ñaan yàlla rek xëy na comme yàlla ñu ngi def ñu ngi ci suñu vingt ans dinañ def tout teel leen contacter xëy na tamit dañuy yéex a yëg wala yooyu. Mhm. dañ leen teel a contacter xool na la ñuy def pour euh, ñu gën ci jàpp. association bi boo ci bëggee tàbb ñaata ngay joxe wala c'est gratuit. Euh, actuellement nag carte de membre 1000 francs rek ngay joxe nii nii nii carte de membre yaa ngi fa. soo ñëwee ci siège bi ñu koy wax kër Pape Moussa Ndione ci mooy secretaire général bi soo ñëwee rek foofu mooy siège bi soo ñëwee ne danga nga bëgg a tàbbi ci association bi dinañ la leeral euh, tënkal la lépp nga joxe mille francs yem ak ñi fi def 19 ans. kon amul xàjj ak seen. d'ailleurs di gërëm comme ni nga ko waxee Cheikh Tidiane mi nga xam ne 10 ans yi nga xam Cheikh Tidiane bay di doomu imam Pape de passage ñu gërëm tamit imam Pape mhm. mi nga xam ne mooy président des imams wax dëgg yàlla muy sunu kilifa di sunu idole ci lu bëri di ñu jàppale tamit. ba ci association l'imam l'imam le plus disponible. ok ma ngoog.

association bi ñaanal néew ji euh, waaye dawla yi nga xam ne jóge nañ ci quartier bi yëpp ñu ñaanal leen ñoom ñëpp kenn ku nekk ñu doog a xëy nag la lendemain dimanche bi doog jublu ci mbir yi kon euh, imam de passage ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla yàlla dool la sutura teraanga ak barke ñu cërale woon ci ay waxtu mot na ah, ñu <laughs> tonton Ibou ñu ngi lay jaajëfal di rafetlu bu baax répondre bi nga xam ne rek ñëw nga répondre ko sama invitation waaw fii moom sama kër la joojo fii sama kër la yow sama jarbaat nga sama lépp nga jaara ñu ngi lay ziar ba si ñoom uh, Fatima ñëpp ñi nga xam ne jaar nañ fii def nañoo ak ñoom uh, émission mhm. Cécile ñëw na ba ci consultation ba waaw Rachid moo ko indi woon ñoom ñëpp uh, da ñëwoon na fa ci consultation mës na fa ñëw faju fa mhm. Mhm. Cécile bi nga xam ne nekkoon na fii waaw kon kon kon association bi am na solo ci lu bëree bari ñoom ñëpp Rachid ñoom ñëpp kenn ku nekk koo am ay xale da koy indi tout ça affaire yooyu kon dañ leen di sant di leen gërëm. Mhm. te xam ne wax dëgg yàlla seen 24 moom sama kër la comme ni leen ko NJ waxee fii moom amuñu fi xaaj ak seen. Mhm. lépp lu koy doxal rek dañuy ñaan yàlla teg ci sunu loxo suñu sañoon yàlla nañu yàlla dimbali ba mu dugg ci TTT bi. Mhm. Ah? amiin yàlla defal ñu ci xéewal ba ñu koy dégg international. amiin yaa àdduna bi yëpp ñu fay dégg seen 24 TV. di gërëm NJ bu baax a baax di gërëm soxnaam mari ak la deuxième dame. Aïcha Aïcha. ñu ngi leen di gërëm di leen sant. di gërëm ngi gërëm sama ñaari soxna yi. waaw dëgg neexul yàlla booleel. kenn ci mu ngi ci lycée technique bi. yàlla def na foofu la benn mankaan bi nekk. deuxième femme bi mu ngi koñ ba bi nga sama sama. sa waaw. wax dëgg yàlla borom ñaari galan. di ñaan ñu ngi lay jaajëfal bu baax. teranga di gërëm mm-hmm. waa quartier ba yëpp. Mm-hmm. di leen wax ne daal ñu ngi leen di gërëm di leen sant ñun daal seen i ndongo lañ yoo xam ne daal bëgg leen doxal bëgg lépp li nga xam ne yàlla dimbali nañ ñu mën ko ci gox bi dinañ ci rey suñu bopp ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant. kontaan nañ ci émission bi macha allah. Mm-hmm. ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm. ñu ngi lay jaajëfal bu baax tonton Ibou Thiam Bali Bousso. ñu tàggatoo tàggatoo bu dul tàggatoo amoon mbégte kontaan te yow itam bokk ak yow bi le plateau. Euh, mbégte partage la rek parce que li may wax chaque jour rek yow moom bokk ak yow euh, jotaay daf may neex parce que dañ ciy jàngee lu bari. Mhm. ñoo boo ko di nekk mais euh, saa bu waxee rek da ngay jàng ci moom da ngay gën defaraat sa wax ak tamit euh, li ngay li ngay toogee ci plateau yi macha allah ku baax la te ku aussi. yaa baax rek ku ku partagé la bëgg nit ko avancé man dama bëgg nit koo xam ne li ngay wax day nekk ci yow. ñun mhm. ay ndongo daara lañ. jaar nañ daara lu yàgg. Mhm. xam nañ nit ki gaa ñi nekk suñu waajur bëriwut. at yi nga xam ne nekkal nañ ko suñu waa kër bëriwul ci daara lañ yee lañ defee lépp moo tax nit ki bu waxee rek hmm. ak comportement dañuy xam moom yàlla da koo may loolu hmm. nit koo xam ne lu mu nekk ci moom lay wax te du touché man dama bëgg nit koo xam ne doo touché te nekk ci yow ngay wax moom suñu jarwaat la noonu la mën a mel macha allah muy muy ku baax maamam maamam sax c'est un ancien <laughs> photographe. mu yaayam ñëw nekk photographe. mu ngi noonu moom kon moom <laughs> kon moom daa doonu baax gi. Ah, yàlla ko yàlla defal jàmm te ñu la bokk mu bëgg a àgg rek yàlla <laughs> nga fa. yow uh, na ñu yàlla defal jàmm rek. sa àdduna yàlla na la ko yàlla defal. Mm-hmm. Uh, ñu ngi koy sant baax di ko gërëm di la gërëm la tamit ci euh, invitation bi ñu nangul nga wuyu si ñu mm-hmm. euh, kàddu yi am na solo bu baax di la ñaanal rek yéen tamit seen association bi fi ngeen bëgg a àgg mm-hmm. ak tamit euh, li nga bëgg a doon si quartier bi yàlla defal la ci ndam nga jëmale quartier bi fu kawee kawe incha allah di remercier aussi tamit Rachid bi nga xam ne sama lakk la mais moom itamit ku baax la <laughs> lu ma laa koy wax mais du mer ñu nga xam ne ñooñ doon seetaan leen euh, dig daje ba euh, mercredi incha allah. ñu jaajëfal la bu baax xam naa pour ma pour ma tàggatoo xëy dana dina xaw a dina xaw a jafe ah. trop <laughs> mais yàlla yàlla baax na parce que dañuy wax rek nit baaxut. kay wax ci moom lu baax ko ko ko ko ko baax ndaxte tey amaana nekkinu jigéen dafa xaw a doy waar mm. du ñàkk parfois mu am yenn yoo xam ne bu amee mais boo ko sekkee ak ay taalibe comme ni mu ko ni ko waxee rek mm, mm, amaana liggéey ba day yomb ci yéen nga xam ne benn sujet tabu amuñu ko ñun ñaax ci sunu ci sunu diggante loolu rek ak ak ak cant la ñuy ay ay taalibe Ahmadou donc noonu rek la mën a nu mën a demee ñu ngi lay jaajëfalat bu baax ci li nga xam ne rek Touba lañ bokk ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax Bale Bousso moomaat amaat mbégte ak kontante di bokk ak moom euh, saa su ne euh, bi lépp plateau nga xam ne su ma gisul duma duma duma duma nekk xaw nga woo ko Bale Bousso foo nekk xaw nga ñu <laughs> dëgg neexut son son Ibou Thiam itam ñu jaajëfal la ci répondre bi nga xam ne rek ñëw nga répondre ko sunu invitation di notable foofu ci quartier Thiali di la ñaanal saa borom yokk fan wi yokk mën-mën gi yokku la zahiran wa batinan mm. yaa xam li nga bëgg daal yal na la ko saa borom ah, defal li ngay yuutu itam bu dee sab njiglaay yal nga ko jot parce que Cheikh Karim sama yaakaar ja tey ak suba ca moom moom sax ah, lay jeexalee di ko sant di ko gërëm ndax dañ naan ko lépp yow a mm. Mbàkke bal lépp lépp yow ne rek mooy waa bi parfum mm. di jaay ay parfum yu mucc ayib ah, nekk foofa ca marché central bu Thiès côté gare ba nga xam ne rek démb dama faa jaar mu ne ma sama sama sama mbokk nga am kaay ma ngeen ko bëggee rek mën ngeen ko wet 06 60 77 997 06 60 waaye duma faté ben yoon ki nga xamné mom mo jaar rek man ci bi ensemble di mohammed di jay jaaykatu yéré fofu ci marché central bi ci sama lakkal la kaana make up mi génn ci make up bu mucc ayib bi mom itam maa koy jaajëfalaat bu baax a baax di jaajëfal képp ko xamné rek yaa ngi doon suivre à travers la télévision des grands événements la Sen 24 TV waaye ñi nga xam itam ñu ngi ñuy topp en live euh, sur euh, TikTok ñoom itam ñu ngi leen di big up di leen jaajëfal bu baax a baax ndax nee naa la journaliste wala animatrice bu sox amee fitu di wax c'est parce que am na ñu koy déglu waaye nag am na ci ginnaawam benn équipe technique bu xarañ loola Rachid yaa mën yaa ëpp doole yaa gën a féetee xale donc ñu ngi lay jaajëfal bu baax. moo neex <laughs> waaw yaa neex <laughs> ku ñuy jaajëfal la donc cant ak ngërëm ñeexa ñeel na la Rachid Kama waaye cant ak ngërëm ñeel na itam sunu DG njegeen maam as na am jàmm euh, jàmmam mooy sunu jàmm donc di leen ñaanali yàlla di leen jaajëfal di leen jox dig daji ba àjjuma incha allah ci beneen numéro seen café matinal.